asalaamaaleykum mbokku internet yi bàyyi xel seen site bi di saare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo tey nag dañuy doxantu ba ci diwaanu Diourbel fekk fa jëye bu doy bi nga xamante ni moo fa daal di xew ci benn village ba ñuy woowee Nebe nekk foofu ca jurbeel village boobu nag démb ci ngoon benn usine moo fa daal di explosé ginaaw ba jëye jooju xewee nag xayma bi nga xamante ni def nañu ko ci ñi am ay blessés graves mu ngi tollu ci neuf personnes jamono yi ñuy àddu ngeen di teelu nag ñu ngi ci hôpital bu Diourbel ñuy ñaan rek yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci njaboot ji waaye mbir moomu ba tey am na ci kenn koo xamante ni ñàkk na ci bakkanam muy benn jeune buy wuyoo ci turu Dame Fall Dame Fall moomu nag ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare aljanay firdawsi te suuf oyof ci kawam yal na rëccoo li mu doon ñëwee ci àdduna ñu ngi tax ñun waa Wassare groupe yëpp ñu ngi koy jaale ay mbokkam ba tax information boobu ñu ngi leen koy toppal ñun waa Wassare du fi jot a ruusandi rek leen ko jukkil jërë ngeen jëf ci topp bi ngeen ñu topp ñu taab ba beneen yoon incha allah.